par rapport à li nga xam mooy candidature Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Cheikh Tidiane Dièye paraît-il que wax na du ma ci sori parce que dégloogu ma l'intégralité de son discours moo tax mënu ma tontu ci moom mais concernant tey jii nii euh, comment dirais comment dirais-je la euh, la réclamation bi nga xam ni moom la ñu dugal ñoom nu mu tudd sax euh, ñoom kii moom la ñu dugal comment dirais-je <coughs> ñoom ñoom maître Amadou Sall bon voilà donc version nu mu tudd sax comment dirais-je réclamation bi moo nekk nii.

mbir day jaar yoon ñëpp a xam nañ ne football match balaa muy commencé arbitre bu ñëwee téye day laaj capitaine ndax da ngay def réserve balaa match bay démarré am na wala amul balaa match réserve kenn du ko bind après match ndax da ngay def réserve um déet nga ne damay def réserve ñu la bindal naa ci diw réserve naa ci diw réserve naa ci diw licence numéro nangam licence numéro am ñu ne la motif la nga wax motif yi lu mel noonu nag maintenant motif réserve maintenant nag léegi bu ci paree maintenant léegi évocation mais euh, maintenant loolu la mais bu fekkee dañ xool li nga xam ne moom la Amadou Ba dugal Euh, dafa rappeler les faits ak procédures yi démb waxoon nañ peut-être que liñ wax ñom ñëw na fi mais man daa lu ma ci dolli euh, décision numéro 1E 2024 ci date 12 janvier 2024 conseil constitutionnel dafa génne wala dafa publier liste candidats yi élection présidentielle yi nga am ñom wara jëm 25 février mu ne ci biir ñoo ñu génne. da sey gis mom amadou ba turu basiru joma jaxar fay mune mune ci li muy bëgg wax conseil constitutionnel di bolé mune yi ma leen di indil ni dama ko wax ngir mom warta nek candidat ndax limay may waja wax ni nee parce que basiru joomaa jaxar fay dafa bokkon benen parti politique bo xamanteni ni dañ ko dañ ko dañ ko dissoudre manam parti ba nguur mo jël décision ne parti bi existe wartul existe ci aduna bi donc mom Amadou Ba nee Bassirou Diomaye fay dafa bok ci parti dissoute dissoute du moins bi produire ay faux production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel manam dafa produire ay fausses pièces ci kanamu conseil constitutionnel mom la wax bi coalition bi mu bok wala coalition bi la a Bassirou Ba coalition bobu niñ ko nee na ñeenteel bi nga xam moom lay toppee wala mu boolee Bassirou Diomaye fay mooy bokkul ci benn parti wala coalition de parti politique maintenant nag léegi mu ne li tax mu wax ko li tax mu wax ko donc euh, nee na euh, nu mu tudd sax bu fekkee lan moo tax mu ne Bassirou Diomaye Faye warul nekk candidat parce que nee dafa bokk parti bu ñu dissoudre mu ne lu tax mu ne attendu que par décret 2023 tiré 1407 mu ne dafa am décret boo xam ni 2023 la numéro décret mooy 1407 datu 31 juillet 2023 nee président de la République bu Sénégal dafa dissoudre parti bi ñu woowee pastif moo tax ngeen dégg ex pastif nee na lan moo tax ñu ne parce que manquement li nga xamante ni mooy gar yi nga xam am na ko ci diggante moom ak yoon par rapport ak ponku ñeent ci constitution réew dañ ko disul parce que Pastef respecté wul ponku ñent bi nga xamni mo nek ci ponku mo nek ci constitution réew mi que son parti que son arrêt numéro ECW slash CCJ slash GUD 42 23 du 17 novembre 2023 la cour de justice de la CDAO ci arrêt numéro ECW CCJ 42 23 bu fukki fan ak juróom-ñaar ci novembre 2023 du sud bu CEDEAO dafa considérer de la direction au regard des faits insurrectionnels portés à son attention et de l'application de la législation en vigueur au Sénégal nee Mom moom Amadou Mom li tax moom mu boire boole Bassirou Diomaye Fay, nee au-delà président discours bi mu discours Pastef nee na CEDEAO sax si boppam nee na discours bi mu discours Pastef lu jaar yoon la ngir lan ngir li nga xam moom lañ koy toppee muy ay jëf yoo xam insurrectionnel mooy fipp ngir màbb réew ma donc lañ jox conseil euh, lañ jox CEDEAO que cette dissolution au terme de la loi numéro 81 17 ñu ko du 6 mai 81 relative aux partis politiques emporte interdiction pour ce parti d'exercer les activités ordinairement dévolues aux partis politiques gis ngeen débat bi soulevé bu waxuma ak ku dem fa faram fàcce te faram fàcce woo fa dara da fas fàtte faram fàcce woo maanaam mais da fas fàtte <laughs> donc <coughs> li dax ñu ne la Amadou Ba fi sukkandiku ci li jiitu loi 81 17 la lu loi 81 17 mooy tëral lan mooy parti politique bu Sénégal ci Sénégal lan mooy parti politique mais pour man li ma ci bëgg dolli mooy. de malin la loi 1961 ci pas, parce que dem wax na len ni ci loi ou rewmi 81 17 dañ ne parti politique yi niñ constitué woo mooy ni constitué association cognba ba wax na lañ ko dem tax attendu qui ressort de l'article 1er de la loi 81 17 du 16 mai du 6 mai 81 que ouvrez les guillemets les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d'associations sénégalaise selon les dispositions des articles 812 à 814 du Code des obligations civiles et commerciales. les vous association loi 1961 madame lay ma vais de le code tamit parce que je vais vous dire que waxuma leen loi 1981 madame lay loi 1981 voilà loi 1981 qui décret d'application 1961 loi 1961 qui décret d'application bi décret d'application là ni lan moy lan association bi nga xamné de type formation populaire lan motax ñu wax voilà. je m'en la ko donc, voilà mën nga ko mën bon voilà mu ne lan moo tax Pastef ak association bi ne ci koñ bi ñoo yem gis nga lii ma c'est le décret d'application de la loi 1961 le président de la République vu la constitution notamment en ses articles 37 et 65 vu le code des obligations civiles et commerciales et notamment en son article 821 vu la loi numéro 61 09 du 14 janvier 1961 vu la loi 68 08 du 26 mars 1968 vieux décret numéro du 1er septembre 1960 relatif aux activités des groupements sportifs. La Cour suprême, entendue en sa du 29 novembre 1914, sur rapport conjoint du ministre d'État chargé de l'Intérieur, du ministre de la Culture et du ministre de la Jeunesse et des Sports, Décret. Décret, président article 1 Les obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d'éducation populaire et sportive ainsi que les associations à caractère culturel visées à l'article 821 du Code de procédure civile et commerciale sont fixées conformément au présent décret. Le titre 1, définition. Titre 1, définition. Madame Moy association, association à but d'éducation populaire. Mon article 2 constitue des associations à but d'éducation populaire définition les groupements consacrant l'essentiel de leurs activités à l'épanouissement de la personne humaine sous ses différents aspects en vue d'une insertion consciente et efficace dans la société Muné, association à but d'éducation populaire mu ne mooy groupement yi nga xam ne mbooloo yi nga xam ni la ëpp ci seeni jëf maanaam la ëpp seeni jëf mooy fexe ba nit ki gis boppam te bépp anamam bi nga xam ne ma ngi cee yëngu ngir lan ngir nekkam ànd ak xelam nekkam ànd ak wéram nekkam ànd ak dalam mi ngi koy def ci biir pénc mi waaye tamit la muy jëf mu nekk loo xam day amal njëriñ pénc mi comme jëmbat garab comme bale comme waxtaan ci comme waxtaan développer Item. yooyu les les groupements consacrant l'essentiel de leurs activités à l'épanouissement de la personne humaine sous ses différents aspects en vue d'une insertion d'une insertion consciente et efficace dans la société loolu mooy bi jiitu mu ñu ne ko ak lan association association à but d'éducation populaire les unions qui sont chargées d'encadrer et de coordonner les activités de ces groupement au niveau national mu ne ak ah, xam nga léeg nga am ah, nga am benn ay association yu bëri nga am ASC Cosaan am ASC Gazel am ASC Dagoudane am ASC Susuba am Bokk Jëf am euh, Jékki Pénc am nu mu tudd sax jeex na defe naa donc neuf ASC yi nga xam moom moo nekk pikin nga am cité police nga am yooyu yëpp jamono 1 2 3 nga am nga am ASC yëpp mais nag boo xoolee na nga booloo ñoom ca département ba tuddee seen bopp zone na nga bokk ci commune ba tuddee seen bopp zone 1 zone 1 zone 2 zone 3 booloo tudd ODCAV ODCAV yëpp booloo tudd or ORCAV yëpp booloo tudd ONCAV moo tax moi le groupement yooyu nga xam ni nawetaan bi dañuy ànd ak ndaw yi ñuy andi football, di andi amal jëmbat garab di waxtaan ci ay thème culturel yu demee noonu mu ne ñoom ñëpp dañu ni woowee éducation à vie populaire moi, ak cave, Moy, or cave, ORCAV on ONCAV les unions qui sont chargées d'encadrer et de coordonner les activités de ces groupements au niveau national Mon article 3 dama bis suuf article 3 mu les activités auxquelles le caractère d'éducation populaire est reconnu au Sénégal sont celles pratiquées dans le cadre mu activités yi Il yi a jëf yi nga xam dañ koy éducation populaire Il y a nangu nañ ko ci biim réew ñeen ci des mouvements de jeunesse virgule mouvement ndaw virgule association des jeunes de Maka Koloban mu des mouvements de jeunes virgule des mouvements yoo xam ni laïque des mouvements confessionnels association des jeunes chrétiens association des jeunes musulmans daayiratul Moustarchidine wala daayiratul bëgg baab ak sëñ Babacar wala daayiratul ou Fawzayni wala nangam sangam donc mooy yi nga xam ni confessionnel ak lan politique politique associé mouvement politique et professionnel donc filer la lay ni association à euh, type association à but d'éducation populaire des mouvements de jeunesse virgule des mouvements laïcs des mouvements confessionnels des mouvements politiques le décret d'application de la loi 1961 moo wax lii parti politique association type d'association à but d'éducation populaire L'état tax ma moi. nag mooy bu appliqué ko parti politique dissoudre voilà Nous ne la bépp association article 821 du code des obligations civiles et commerciales avec l'article 1er de la loi 81 tiré 17 ñoom ñaar que de ni association moy parti politique parti politique moy association ben lañu buñ ci dissoudre ku fa bokkoon boo demee feneen mënoo fa bok kon Bassirou Diomaye dafa bokkoon Pastef Pastef que, ci li nga xamanteni mom lañuy wowe les mouvements politiques bok ci li ñu type d'association à but d'éducation populaire kon kuñ ci kuñ ci num mu tudd kuñ ci raje parti buñ ci raje parti buñ ci dindi ka fa bokone mënatul bok ci benen parti politique ça c'est clair maintenant moo tax réclamation bi Amadou Ba dugal dérangé au fet ça dérange moo tax naan dafa ragal ak dafa lalu nag nangam sangam et c'est ça moo tax bu ngeen xoolee ci boole bi mu boolee moom Amadou Ba boole bi mu boolee nu mu tuddee Bassirou Diomaye Diakhar Faye lu leer la ci wax lu leer leer la ci wax moo tax muy wëyal nii moo muy wëyal nii melay ma tuuti moo tax muy wëyal nii donc bon voilà muy wëyal nii donc Bassirou Diomaye Faye les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d'associations sénégalaise, selon les dispositions des articles 812 à 814 du Code des obligations civiles et commerciales. Ils sont soumis, en outre, aux dispositions de la présente loi. Hmm. Ils sont soumis aux dispositions de la présente loi, loi par loi 81 17 loi moi ne peuvent participer cette interdiction résulte clairement de l'article 821 du code des obligations civiles et commerciales bi loi bi la parti politique moo indi Amadou créé wu conseil créé loi 81 17 moko créé code des obligations civiles et commerciales ci Mon les partis politiques sont obligatoirement constitués sous forme d'associations sénégalaises selon les dispositions des articles 812 à 814 du code des obligations civiles et commerciales. Ils sont soumis, en outre, aux dispositions de la présente loi. mu ñëw mu wax code des obligations civiles et commerciales mu ñëw code des obligations civiles et commerciales c'est article 821 mu ne la ginnaaw ba un parti politique qui association été ñoo yem ni ñu leen politique, ku fi daf daflu bokk ci benn parti politique lañ la waxoon sànq te woo ndaw ñi ñu jëmbat garab woo ndaw ñi ñu defal seen réew woo ndaw ñi ñuy waxtaane seen réew woo ndaw ñi ci keppaar yi ñuy wax dox dëkk bi doxut nu ñuy fexe ba dëkk bi dox dëkk bi deful nii ni ñuy fexe ba nii nii ñu di créer ay groupement fii ñu di créer association fii association defar sa gox association naatal sa gox groupement takku liggéey groupement nangam yow créer sa parti Pastef woo war a dem ci politique war a defar penc mi nga naan nañu génne deux cent mille ndaw nañ taal réew mi nañu génne sa comme Samuel Doe bu mu bakkee ma sama bakkeen boobaa ñu la nag la ngay wax ak la loi wax bokkul far nañ sa parti boo fa bokkoon nag ak tiijir boo fa mën a am yaa yor yaa yor MODAP maanaam mooy mouvement des xaw ma lan sëriñ daara patriotique yaa xam ma càpp mouvement de caga patriote yaa xam nu mu tudd sax moo kàpp wala moo moo loo foofa bokkoon loo xam loo xam donc loo mën a xam maintenant mooy la cette interdiction résulte clairement de l'article 821 du code les obligations civiles et commerciales relatives aux associations qui ont le même régime juridique que les partis politiques constituent sous forme d'association au terme duquel mu Je vais tout, tout. ma Donc, donc ni nga waxee sax yaa xam ba nga bokkee ci association ba mocap ak mocap ak modap ak loo fa mënoon am trésorier wëg yaa xam Sare woo xam Joma yoo El Maliko, woo Waly Ousmane Sonko woo Djibi Gueye Ndiaye woo xam nu mu tudd Tobo yaa xam loo fa mënoon yor Loi waaw Sénégal la mu wax dafa leer ne peuvent participer pendant un délai de 5 ans, à compter de la dissolution, à quelque titre que ce soit, à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive. wax bi fii la Moi, wax bi fii la décret d'application de la loi 1961 Moi, je ni mbir mouvement yi laïque confessionnel politique mu ne yii mooy type d' éducation association xam éducation populaire lañ leen woowee dugalal naa la ko léegi dugalaat dugalaatam wax lii mu wax nii ne ne peuvent participer pendant un délai de cinq ans à compter de la dissolution à quelque titre que ce soit à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ma ñëwaat yeeg yéen ci décret d'application ma la woon léegi li ma la mujjee envoyé donc voilà wàccal ba ci suuf donc moo lay wax ne la voilà voilà les activités auxquelles le caractère d'éducation sport d'éducation populaire populaire et moi voilà est reconnu au Sénégal sont celles pratiquées dans le cadre de points des mouvements de jeunesse laïque des mouvements laïques des mouvements confessionnels des mouvements politiques les les association à but d'éducation populaire les mouvements de jeunesse les mouvements laïcs, les mouvements confessionnels les mouvements politiques et les mouvements professionnels Nous avons formé le titre 2 définition de la du décret d'application de la loi 1961 article 2

Euh, ne peuvent participer pendant un délai de 5 ans à compter de la dissolution, à quelque titre que ce soit, à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel selon le cas, des individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d'organisations dissoutes par application de l'année précédente. Donc on va l'air là leer nañ maintenant nag ku mu neex nga gàddu micro yi ku mu neex nga déclaré sa bopp expert en tout électoral expert en guerre civile expert en tension électorale expert en tout dëxin sax boo xefee ñu wax la ñu koy toogee ñoom Alioune donc ñooñu ñëpp li leer ba leer mooy boole bi Amadou boole c'est pertinent qu'il s'ensuit que monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye précédemment secrétaire général de Pastif. Mom du bu ndaw xam nga boo jëlee ñoom Dramé c'est les bousillés, au fait Ça dit que <laughs> ñoom imam drame. c'est les bousillés, au fait mais les néféreurs les néféreurs mooy Ousmane Sonko ak ñoom ce sont les néféreurs qui qui Pastef ñoom PASSIF. imam ce sont les bousillés chargés de racheter, de raxas les néférés des néféreurs <laughs> donc Basir Diomaye du Kundaou, Djakar Basir Fay, précédemment secrétaire général de Pastif, ne peut plus exercer les droits attachés à la qualité de membre d'un parti politique du fait de la dissolution de Pastif, et c'est sous le couvert d'une coalition de partis politiques donc il que certes l'article 821 du code des obligations civiles et commerciales vise les dirigeants d'association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel, alors que l'article 2 de la loi numéro 1968-08 du 2, 26 mars 1960 modifiant le code, le code des obligations commerciales et réprimant la constitution d'association illégale limite euh, les actes autorisés aux dirigeants d'associations dissoutes, y compris les partis politiques, à l'accomplissement des actes nécessaires aux besoins de sa liquidation ou à l'instance en annulation ou en cassation des décisions administratives ou judiciaires concernant situation. Qu'en dehors de ces actes, les dirigeants de partis dissous ne peuvent accomplir aucun acte, sauf à réaliser des faits rentrant dans ceux relatifs à la reconstitution de l'IC dissous. Que le seul délai prévu par le Code des obligations civiles et commerciales et sur l'article 821 et dont les effets doivent être rendus euh, aux dirigeants de partis dissous. Donc, ce li ñee la bokkatoo yow mënutoo bokk benn ñaareel bi mooy le le problème que Amadou a posé mooy que mu ne bu paree ci loolu kon pare nañ ci moom mënul nekk candidat pare na ci parce que pare na maintenant sur le rejet de la candidature pour production de fausses pièces lan moo tax Amadou topp Bassirou Diomaye boole ko ne ay fausses pièces lañ déposé pièce yu baaxul. Nena, buñu setlo ni Basirou Diomaye Jakar un dañ ko japp tejj ko dóor ko mandat dépôt le 18 avril 2023 lan pour acte de nature à compromettre à la paix publique outrage à magistrat et diffamation à l'encontre d'un corps constitué Moi Basirou Diomaye ñam waxone ñoy ñooy yi nga xamni ñoy ñooy politiciens di jox Macky Sall ñuy lek dëmm yooyu la yóbbul di naan ban anam leen yóbboo la yóbboo boppam mu ne moom Amadou mooy boole ba léegi de mu ne bu ñu xoolee ci réquisitoire bi nga xam ni dañoo tëj joomaay ngir lam saaga magistrat yi mu ñëwaat mu amaat benn réquisitoire supplétif ñu génn ko kaso ñëwaat tegaat ko ci kanamu juge bi mu dégluwaat ko daajaat ko beneen mandat de dépôt boobu tam mi ngi koy topp pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, diffusion de fausses nouvelles, appel à l'insurrection. Maintenant, Basile Diomaye manque sa kasoba. l'air. Très bien. Euh, son statut de personne en provisoire. Madame, moi, je suis un peu plus de da koy dugal ci régime boo hamni régime particulier là xam ngeen moi je mooy jëflante yi muy jëflante ci wàllu vie civile am ak publique am de sorte son acte de candidature ne saurait déroger au régime carcéral maanaam tey jii li tax mu wax lii dafa am solo mooy kuñ jàpp tëj la rëbës wala tëj la Sébikotane wala euh, Cap Manuel est digne ngay bind déclaration de candidature signée par ci bi dem yegg sa mandataire mu am fu muy que euh, attendu qui résulte des dispositions des articles L120 et L121 du code électoral que le candidat à l'élection présidentielle est astreint au dépôt de certaines pièces devant le conseil constitutionnel candidat a bokk article L 120 et L 121 par force d'un pièce pièces yoo xam ko indi sa Je y'a koy indi ne Je ne que parmi celles-ci ci qui qui dit a indi da cee am déclaration de candidature borom bindal ko ko maanaam moom Bassirou joomaay mooy bindal boppam déclaration bi bu jeexee moo koy signal boppam te pourtant mañ ta kaso ba benn beneen bi mooy déclaration sur l'honneur waat ga mu waat ca gañ a baayam déclaration sur l'honneur waat ga mu waat ca gañ a baayam ne candidature dafa ànd ak li nga xam ni moom la article 4 ak vingt 28 bu constitution bi wax mooy benn nationalité la loolu sa gañ a baay ngay waat maam danga koy waat sa gañob baay yaa koy bind ne déclaration si loolu maa ngi waat sama gañob baay ne benn réew kott laa bokk muy sunu gaal nga waat sa gañob baay tamit da koy signal sa bopp yaa koy signal sa bopp kenn du la ko signal ñetteel bi mooy euh, ñetteel bi mooy nu mu tudd sax euh, comment dirais-je dafa war a waataat ci gañob baayam ni moom Bassirou joomaay fay mu bind waat ne man Bassirou joomaay fay damaa ngi waat ne aw ma benn bor boo xam ne amel naa ko Sénégal ci koppar mu laatal boppam moo nga loolu leer na kon ñett document yooyu da cee bokk ci neuf pièces yi nga xam ni borom boo koy bindal boppam signal ko boppam kon loolu leer na nan la ko Diomaye defee cest nan la joomaay bindee nan la signé kan la ko jox ak fan la jaar loolu lay leeral mu ne que ces pour une personne en détention dans un centre pénitentiaire ne peuvent parvenir au conseil constitutionnel que par le truchement de l'administration pénitentiaire. dit yooyu muy euh, déclaration de candidature bi maa ngi xibaar dama war a été candidat yaa ko bindal sa bopp maa a waat sama gañob bàyyi ni benn nationalité de am mën naa bind mën lire liir mën naa mën naa wax tubaab da nga koy waat sa gañob bàyyi ñetteel mooy nga waat sa ni amolo bor senegal ñetti wat yoy nga wat sa keñob bay ñaari wat nga wat sa keñob bay ak ñaar benn bi nga bilal ne candidat nga yaa koy signal sa bop te bokoy genn ci kasso bi ginnaaw mom kasso la nek da fa a jaar par force ci li nga xam moy administration pénitentiaire bi parce que <laughs> ku nek kaso buy bind courrier da fu mi jaar ñi nga xam ni am nañu mbokk yu ne bi kasso bi boko bindé lettre da fu mi jaar bu lu bindé lettre da fu mi jaar fu mi jaar moy l'administration pénitentiaire loolu problème bob la problème bob mo wara a wax fausse pièce Maintenant, euh, à preuve, il résulte de l'article 242, décret numéro 2001-362 du 4 mai 2001, relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions pénales que, que les correspondances des détenus sont soumises à la censure au départ comme à l'arrivée, à l'exception de celles à destination ou en provenance des assistants à, sociaux et des défenseurs. En ce qui concerne ces dernières, l'administration détermine les garanties nécessaires pour s'assurer qu'elles émanent bien des défenseurs. Les lettres écrites par les détenus sont remises ouvertes au chef de cour puis à, l'adjoint au, régisseur une fois par jour. Dans le cas où elles ne respectent pas les dispositions de l'article 246, elles sont rendues ou retournées à l'inspecteur ou, ou nee na li tax mu ne Bassirou Diomaye Diakhar fay lëm yóbbu conseil constitutionnel du ay pièces yu baax lim bu li mu jublu foofu mooy keneen a ko bind signeel ko yóbbu ko parce moom Bassirou la muy bind signeel ko war koo yóbbu te na nga xam ne yoonu Sénégal moom la ko tënkee nee na bataaxal yooyu ñu jokkalante diggante ku ñu téye ci yoon ak ana ci biti yooyu ñu jokkalante noonu daa am fu muy jaar ba yegg génn ci biti wala mu am fu muy jaar ba dugg ci biir voilà à la censure au départ comme à l'arrivée censure xam moy lan boy indi yow bi ko de koy nga jox chef de cour chef de cour ubi xool jox ko ki nga ne mu li nga li nga bind lan li nga wax lan ak lan ak lan la lan ak lan ak lan ci chef bu que da ah man de wax tàng na wax dëgg yàlla soxla naa mburaake soxla naa dege soxla naa suukar ak kafe wan nangam sangam ak nangam sangam nga yem ca loola bu ko xoolee xam ne lii garaawut mu yóbbu ko ci adjoint ba adjoint bi xool ko ñu jox ko génne ko mu dem sa jabar sa jabar yi bu lay bind naan séeri namm naa laak xale yi temps yi ñu ngi jàngi école ak nangam sangam ba mu jeex mu signé moom it buy ñëw ci kaso ba ah daa fu muy jaar fu mu jaar ba muy dem lay jaar bu ñëw moo tax mu la les correspondances des détenus sont soumises à la censure au départ comme à l'arrivée nee nak lool yëpp nak da ci bokku ci bi ci assistance sociale ba loolu xam nga ne c'est confidentiel ak bi nga xam sa défenseur am avocat donc te boobu sax nag administration bi dafa leeral li nga garantie défenseur nee lettre yi nga xam ne ba tax koy bind ñi koy bind ci yoon ñu leen leen dañ koy ouverte au chef de cour puis à la, à l'adjoint au régisseur une fois par jour. Dans le cas où elle ne respecte pas les dispositions de l'article 246 bu fekkee respecter wu disposition de l'article 246 nag nga ci chef de chef de chef de cour bi euh, maanaam dafa soxor ak kaso bi temps yi ay lekk yi nii dem ay nangam sangamak, ak bon boo xoolee kaso bi nii def ay genre activisme yooyu boo ñëwee dañ koy jàpp delawaat la ko wala ñu jël ko saisir ko teg ko téye du génn donc les lettres écrites par les prévenus ou à eux adressées peuvent au surplus être communiqué au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci se termine. Qui résulte, qu'on donné Article 243, même décret, moi, tous les détenus ont la faculté de remettre au régisseur des lettres closes adressées par eux aux autorités administratives. Donc, détenus ont la faculté de remettre au régisseur, donc régisseur, des lettres closes adressées par eux ñoo xam ñoom ñoo ko bind jébbal ko ki nga xam ni moom mooy autorité administrative boo xoolee loolu yëpp nag ma la euh, Bassirou Diomaye fay lii mu bind yóbbu ko ci conseil constitutionnel muy waat ci gaño baayam ne benn nationalité la am muy waat ci gaño baayam ne amul réew mi bor muy waat ci gaño baayam wala mu déclaré candidat la Amadou Ba neen ñetti këyit yooyu day réclamer boole ki nga xam mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne moo bind ko signé wu ko parce que fa mu war a jaar jaaru fa donc loolu mooy euh, li nga xamante ni moom mooy ay faux ay fausses pièces su le rejet de la carte de production de fausses pièces maanaam ku ko fa déposé moo ko fa déposé boppam bind ko si signé ko boppam loolu la Amadou bëgg wax kon donc beneen bi mooy euh, li nga xam ne mooy euh, maanaam défaut de qualité de membre de parti politique composant de la coalition parti politique maanaam Bassirou Diomaye mënta am parti politique à l'élection présidentielle il faut nga am parti politique wala nga am coalition de partis politiques légalement constituée or Bassirou Diomaye Faye c'est la mu wax sànq Bassirou Diomaye mënul am parti politique parce que parti politique. dissoudre nañ ko kon mënul dem créer waa parti politique dans ce cas maintenant te boo xoolee ñoom sax li ñuy wax c'est voter Diomaye c'est voter Sonko L'homme est réincarnation d'une partie d'un parti dissous parce que personne ne ñoom la woon donc maintenant li ñu bëgg mooy créer parti décalé, parce décalage Pastef loolu mënul nekk boo xoolee ba léegi ñoom seen lépp Pastef moo ci nekk seen lépp kon parti boobu lañ jéem a dekkilaat oo mënul nekk mënuñu ko dekkilaat parce que yoon da koo tere moom moo tax Amadou boole Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni donc mënul am parti politique légalement constitué parce que yoon may ko ko ku amul parti politique légalement constitué mënoo bokk ci coalition de parti légalement constitué parce que bu fekkee da ngeen am coordination daayira ay daayira ñoo daje pour am coordination di yow boo amulee daayira est-ce que mën nga nekk kon da ñëw yow oto rek ñu la waaw comme tey dañuy jël rek def la waaw yaa prés yaa yaa président daayira sopp na bi nga ne waaw maa président daayira sopp fekkee yow daayira bee nga am noonu donc voilà mu ngi noonu c'est ça donc loolu mooy li nga xam ni euh, moom la Amadou boole ki nga xam ni mooy Bassirou joomaay Diakhar fay kon loolu leer na comme midi maintenant.